sama yëg-yëg da maanaam mooy sant yàlla rek xam ne lii rek la sénégalais doon xaar te nii rek la mënoon demee mënu woon demee neneen man lu coow li ba masaa bari bari am naa ay seere ñu ngi fii xamoon naa lu mu yàgg-yàgg ak lu mu gudd gudd dëgg rek a mujj fii rek la ñu mujj tey lu ne xew na fi lu ne jaar na fi yëf yi tey fii la mujj ñëpp àndandoo nekk benn ki nga xam ne mooy yoroon nguur gi organiser élection yu leer yu jaar ci yoon kii gañe gañe ñii perte perte kon nag li ci des mooy Sénégal yëpp àndandoo jàppale kii ñu fal ñu liggéey réew mi te bàyyi wax ji ak tappale yi te jéem a liggéey réew mi ay wax du ko defar liggéey koy defar ak jub ak li ñëpp bokk ñëpp jot ci kenn ku ci ne la nga moomul nga bàyyi ko te jàpp naa ne ñii ma gis nii yoon woowu danañ ci teg doomu aadama yi sénégalais yi naqari yu jiite sénégalais ba ñu jooju sénégalais nit ñu baax lañ waaye nag dañoo amagul njiit yu leen man njiit waaye bis bu ñu amee njiit yu leen man njiit fañ bëgg réew ma jëm fa danañ fa jëm kon nag lii xew nii moom ndamul Sénégal la ndamul Afrique la ndamul àdduna bépp la jamaay maanaam mu yërëm nit liggéey nit ñi am luñ lekk am luñ naan mën a jàng mën a faju loolu rek mooy yite yite askan loolu bu ko réussir rek lu mu bëgg dana ko am te gëm naa ni bu yàlla loolu dana am.